Euh, lan moo war a nekk la posture de la société civile dans la situation actuelle euh, aujourd'hui dañoo gis il y a beaucoup de critiques qui pleuvent sur euh, sur sur sur sur Alioune quand il demande à l'État de respecter les droits d'un tel ko quand cette personne-là a fait tel appel à l'insurrection euh, vous ne l'avez pas vous ne l'avez rappelé à l'ordre donc discours il a du mal à faire porter euh, son son son discours alors alors euh, j'ai eu j'ai reçu ici Aliou Sané il me dit ma ne ko mais yéen vous êtes une société civile da ngeen war a nekk da ngeen war a jël seen distance mu ne ñoom dañuy assumer Euh, combat bi ñuy mëne parce que dañoo jàpp ne quand il y restriction des libertés ñoom dañuy assumer choisir seen seen camp ci situation bu doy waar bi Sénégal di di dund euh, lan moo war a nekk relu société civile bi est-ce que dafa war a euh, pour au nom de la préservation des des des des, des libertés Euh, penché pour le camp bi mu jàpp ne dañ ko dañ ko néewal doole wala est-ce que dafa war a toujours garder son nekki équidistance de sorte à pouvoir euh, parler au pouvoir et aux forces politiques de l'opposition dafa am benn concept bu bu vicieux boo xam ne il faut faire très attention mooy dañ naan neutralité neutralité mooy man duma fi nekkuma fi nekkuma fële maa ngi quelque fois dafay indi nañ ma baal terme bi fumisterie société civile li war dekk posture mooy indépendance indépendance ça veut pas dire neutralité indépendance dans la vérité c'est-à-dire li nga gëm moom ngay défendre de manière indépendante sans considération de camp tey boo amee position position bi da nga koy défendre ñun bañ nekk sudi à l'époque dafa amoon benn concept bu ma daan wax bi nekk forom civil bi ñu ñëwee taxaw gouvernement bi ñu critiquer opposition critiquer ñu bu ñu defee gouvernement critiqué quelquefois bu ñu defee opposition critiqué quelquefois ma ne à chaque fois ba ne suñu gars yi donc on est sur la bonne voie tant que bu ñu defee ay actes quelquefois gouvernement bi critiqué ñu quelquefois opposition c'est qu'on est dans la bon voie et on ne ménager personne on ne ménageait personne c'est-à-dire que bu ñu gisee gouvernement bi def lu jaaduwul dañ koy wax opposition bu def lu jaaduwul ñu wax ko ko mais il faut éviter aussi ay alliance organique boo nekkee si alliance organique da ngay am problème comme le comme société civile bi fondre ci F24 di nga am problème parce que alliance organique mën nga am problème bon nous on a expérimenté le M23 mais le M23 était quand même, quoi qu'on dise, même si on avait assumé des positions sur un principe, le principe du refus du troisième mandat, et tout le monde était ku ku ku ko bañoon rek mën nga mën nga bokk mais la direction le leadership. yéen M23 c'était la société civile. yéen c'était clair. ça y avait on avait on était sans concession sur ça donc loolu mooy problème bi waxuma nga bañ am des positions communes. ponctuellement avec un groupe que vous appelez l'opposition, souvent c'est l'opposition, mais il faut rester totalement indépendant. bu alliance organique bi demee ba yóbbu la si yenn posture yoo xam ne da ngay glisser de la défense des principes à la à la défense de position politique là tu as problème